ñi nga xamante ni ñoo ñooñu safa te ñuy seetaan en direct nee naa la avec la petite fune du yomb lépp dara dootu leen rëccati te lépp loo xamante ni xew na fii rek ci keppaaru maam di ngeen ko am en exclusivité donc nag du ma def lu dul ñu daal di ànd ak léegi ak sama cameraman bu ñaawul bi ñu daal di wari ki nga xamante ni nag moo waral lépp tey mu Ibrahima sànq ñëw nañ ci ki nga xamante ni mooy l'initiateur tey di festi ci festival bi nga xamante ni moom la ñu dippee keppaaru maam ñu dend ak ki nga xamante ni mooy Ibrahima Mbaye Soppe sama grand sama xarit xarit doon koo xamante ku disponible la ci lepp lo xamanteni rek moy walum théâtre nee naa képp ko xamanteni rek yaangi wër professionnalisme bo ñëwee ba ci mom da ngay dëpp euh, ñu ko nak pour lui jeter des fleurs mais lo xamanteni dañ ko fee fekk parce que kenn ku nekk ko xamanteni rek euh, mu ngi ci euh, milieu bi sédel nako lu mel nonu duñ def rek lu dul nuyoo ak mom ta nga dindi mbaxana bi nak alors comment vous allez non seulement yéen seen patron mo len gëna bax mais yeen ñu dëgër bop ngeen. ah non yow caméraman bi yëpp ay ñu dëgër bop ngeen. mais looloo baax. léegi sumiwuma sama cap. Ah. sëlmuwuma. Ah. maquillage ma. ni ngeen ko bëggee sama bët yu xonq yi ni ma sonne ni noonu lañ koy defee. anyway amul benn problème ñun live and direct bi moo ñu <laughs> ci neex sax ndax ñu am originalité bi alors tay nag euh, ñu bëgg a waxtaan ak yow rek euh, ndaxte gis nañ li nga xamante ni. Euh, je pense que Doudou xam na. Mm-hmm. parce que lépp fi la ko fekk. Mm-hmm. ak moyens yu dérisoire lañ ko doon defee ci quartier bi donc mu mu ñëwoon ñu liggéey ci lu am solo maa ngi profité di ko nuyu di ko ziar. parce que moom euh, affaire bi demul ba xew rek. yaa ngi dégg moom mu bokk si. moom dañ ko dañ ko sosandoo. te loolu lu am solo la. Mm-hmm. maintenant euh, keppaaru maam comme ni ñu koy faral di waxee gis nga nii fi ñu toog nii ci keppaar gi.

ay atelier audiovisuel atelier lecture atelier nangam atelier nangam ma jël ay moniteur diplômé nak ñu encadrer. mais fi ñu liggéey comme dafa xat jour ñu nañ ko mais ñu né mais fi dafa am naaj quoi mënu ñu fi liggéey rek kenn kan la mais pourtant feulé amna bu fa nek ben ah ok ah. pourtant bu

def ko benn tour kese nañu jël tur kii bàyyi tur kii mm-hmm. bàyyi kii ñu nañ ko def mooy keppaaru maam. Euh, voilà voilà ñu ne keppaaru maam lay doon. bu ko defee ñun. Mm-hmm. ci li ñuy yëngu. Mm-hmm. ñu nekk benn pont.

non man en ce moment maa ngi nekk di di bay mhm. parce que tamit euh, lenn léegi sama idée la moy bëggatuma trop di feust ci télévision bi mhm. parce que tamit ku am ay rak mhm. yoo xamante ni li ngay def mën nañ ko rak yo xamanteni li ngay wax sax ñoom ñoo la ko daax des fois fay jaadu nga xaw arrière bay leen ñom ñu ñew may c'est important c'est très important donc man actuellement sama xel ci gëna nek moy mooy la laa leen mën a doolelee may leen fit ba ñun fi ñu taxaw tey ñoo ñu taxaw fa. du ma leen ko bàyyal nag parce que de temps en temps di nga ni curux. am benn boo def ñëwaat. donc man sama objectif en ce moment mooy gën a yaatal pour que xale yi gën a nekk bay affaire. dëgg la c'est c'est un peu ça. kontaan kontaan nañ la bu baax a baax a baax Gallo gis nga li fi li fi ki nga xamante ni mooy Ibrahima Mbaye Sopé bañ na ba soo ñu ñett ko léegi nag ñun benn rek lañ ko bëgg a laaj muy mot de la fin bi Ibrahima Mbaye Sopé lu tax nga bari tiita. ma tey. <laughs> ma may sëpp lu tax nga bëri tiital. mais maa tey. Ah, ah, ah, en tant que leader fii ngay taxaw naan ma tey. fii leader amu fi. fii festival mooy leader. festival bi mooy. leader kon daal yow réponse bi nga war a joxe ci lu tax nga bëri tiital mooy. ma tey <laughs> mooy. festival jeex na jeex